jërëjëf mbokki Sénégal mbokki Bantamba nuyu nañu leen mbokki 2STV am na ñu mbégte jàkkaarloowaat ak yéen ci la 2STV la première chaine de télévision culturelle du Sénégal mbokk yi di leen béggee bu baax a baax am mbégte tey ñëwaat ak yéen ci Bantamba Bantamba comme ni ñu koy waxee saa su nekk ah Bantamba c'est le Bantamba c'est le Bantamba c'est le meilleur mbokk yi ñëw ci sommaire bi semaine bi xam ngeen ni Manga Production woote woon na Manga Production woote woon na fi nga xamante ne mooy terrain ak apes mu amoon làmb ju neex joo xamante ne ni amoon na fa suñu caméraman Laye Ndiaye demaloon ñu fa ñu jëlee fa ambiance bu neex mbokk yi ki nga xamante ne mooy sëñ Modou Niang moom it woote woon na ci vendredi bi làmb ju mag joo xamante ne amoon na ci stade Demba Diop mu tuddee woon ki nga xamante ne nii maître Abdoulaye Wade loolu doon coloré sëñ Modou ak Abdoulaye Wade coloré la mbokk yi xam ngeen ni alaaj Bekaay borom FM Sénégal woote woon na bés bu mag ci stade Iba Mar Diop nekkoon bés boo xamante ne nii. folklore am na fa ambiance culture lépp génn na fa ci wàllu làmb amoon combat yu neex dajale woon jamteeri ak ki nga xamante ne mooy Boy Ngaay dajale woon ki nga xam mooy Mame ak Tapha Leer yu neex am fa yeneen yoo xamante ne ku ci mel ni dox sa garde ku ci mel ni Modou Lo bu Boy Niang ku ci mel ni africain ay ndaanaan daje woon nañu fa bëri fa ci seen biir mbokk yi loolu yëpp ci biir Bantamba waaye xam ngeen ne l'actualité Bantamba la ñu wax Bantamba actualité la ñu wax Maodo di rax ci Gris Bordeaux la Tigre de fas dafa am dogal boo xamante ni dafa wàcc ci kawam CNG suspendre ko lu toll ci at maanaam ñu aj ko un an 2STV yi ni ñu koy defee saa su nekk ñu ñëw fi nga xamante ne nii ñu ngi ci arène bi ci yoof ñu ngi ci arène bi ci jàmmalaay nga xamante ni milieu boo xamante ne nii waa làmb ji dañu fiy faral di ñëw milieu boo xamante ne nii ndaanaan ñi dañu fi faral di daje toog waxtaan ci làmb ñu ñëw fekk si fi Maodo war a waxtaan ak moom loolu yëpp ci la 2STV mbokk yi loolu yëpp ci Bantamba dañuy dugg ci biir nuyu Maodo waxtaan ak moom tuuti wala ñu nuyu ko soog a ñëwaat ci Bantamba ak la 2STV mbokk yi come on si leen c'est le Bantamba c'est le Bantamba c'est le meilleur. Laay Njaay yaa ngeen jëf sama gaay na xamu nice. bana dégg ñaar ne mais Gris 2 laa doon seet gisoo leen ko ci wet gi ayca let's go peew bro nam naa la ci loone ne ma amul daray mbër <laughs> mbokk yi ñu ngi ci arène bi toog na Maodo ngi nii booyu Fass bi dañuy waxtaan ak moom Maodo nuyu nañ la. di nuyu Sénégal yëpp nag. ma mais Gris dafa dafa yaru quoi ñëpp nee nañ Gris 2 dafa yaru lan la. waaw Gris de loolu nit ñi nag ñoo ko gis nit ñi ñoo ko gis mais man gisuma loolu ci sama bopp man daal li ma gis mooy Gris Bordeaux benn doomu daara la Gris benn doomu daara la boo xamante ne dafa juddu si daara juddu fekk euh, famem yëpp. ñu nekk ci diine rek lañu xam ak lislaam ci la ñuy dox sama côté papa sama côté yaay tey ma judd tamit fekk loolu di déroulé ma dem ba toll ci jàng tamit samay waajur yóbbu ma ma jàngi daara xëy na kon mën na am jeexital yooyu moom la nit ñi di gis ba di ko tudd mais man moom du du lu ma jàpp lu am la ba léegi pour man lu bëri war na war na yokk ci sama jëmm ji pour man war naa gën a yaru que nii. Gris 2 bu nekkuloon mbër lan lay doon. waaw ah, sëriñu daara ndax aw ma beneen lu ma def ci àdduna tey jii demoon naa presque booy commencé di jàngale affaire yooyu waaw bien. soree nga ci noonu. ah bien sûr man neuf ans laa def daara yàlla dogal na baqara ilaa naas yi ñu tari ko yàlla dogal nañu ñun alquran moom ñu maîtriser ko trop ba tax na tey jii ñu commencé woon si di si liggéey jàngale nañu presque ay at affaire yi. yàlla daal dogal ne fii daal la ñuy mbokk yi dinañ ci ñëw lépp ci biir Bantamba xam ngeen ajuma sëñ Modou Niang dafa tëggoon làmb làmb ju mag waxoon nañu leen ko kóllëre la mu tuddee ki nga xam mooy Abdoulaye Wade drapeau ci stade Demba Diop la woon diggante Fëggala ak Bruxelles yi ñu ànd ak yéen dem seetaani ko ak suñu réalisateur Babacar Diagne.

alkaan ba jaay taal. da laa jàpp. waaye fa allah moo man la naan xumbal. di xumbal làmb ji. yow yaa koy mu xumb nga mot. ban écurie nga nekk. école de lutte Boy Niang laa ne. ñu waa la. Bruce Lee gars yi ñuy waa kër urgence 24 la. waa Lamsar la. yow yaay kaana bi wala man maay kaana bi. wala magam fële bu mag bi. yow yaay kaana bu mag a mag bi. fimb bu mag bi teg laas bi. Ah, waxal waay naka waxal yow naas gaan. lépp jàmm sant bu wér a wér. tey naka nga dikkee tey la la bis bi laaj. fëgg dóor boom. fëgg dóor boomu corore bàcc muy naaj ci dem ñibbi. bëgg muy dal. yaa bëgg a naan de yow. ay yërëm mais waa koñ bi nañ de. am na ñu dee sax. ay ay tas bi na. waa ji nee bu sifflé combat bi du yàgg. arbitre sifflé arbitre ma defar xol xoolal dama koy yóogalu xam nga li ñu naan yóogalu da ngay job sa job ma yaakaar ne saa nga ma fekk la ma jëm dem sama yoon laa dund ak moom barki moom dina métti de barki Serigne Bamba. kon Baay Faal nga doon nga gëm li may su ma la ko waxee gëm ko. su ma la jàppee nga xam ne doo. dara yow ma la jàpp nga xam ne. su ma la jàppee nga xam. jafe nga xam ne lépp dëgg la yàlla. su ma la jafee nga woyati. maa ñaan yaay kan. man maay Rambo. yow yaay mu day toj ne ni avant arbitre bi di lu leer laa lay wax yaa lépp lay toj avant arbitre bi di lépp lay toj bala arbitre bi di bu arbitre <laughs> yaa xam nga ne bisu maître Ablaye Wade yaaw jaal ñàkk combat boobu saret bu yàq yaaw jaal ñoom ñaar na nañu. sareet mbëkk na ko <laughs> yaaw dóor na ko sareet kaawono laa ilaaha illallah yaaw sareet <laughs> mbëkk na ko sareet mbëkk na ko <laughs> ay waay tay la tay sareet amaat na deuxième avertissement parce que daa mbëkk yaa tey nan naka lay demee dama ko bëgg a wàccee barke borom Touba Mbacke bu def loolu jéem dee gaaw barke Serigne Touba ndeysaan arbitre bi sifflé waat na mbokk yi yaaw jaal saret bu yàqu dajawaat nanu te saret bu yàqu li ma jaaxal bëñam yi yaawoo ko dindi woon ñoom ñaar daje nañu jàppante nanu ndeysaan jadi jadi la woon ah yaaw jaal saret bu yàqu saret bu yàqu duggoon na ko mbot yaaw jaal war na ko nombo daan na bu yàqu maa la wax lii yaaw jaal daan na bu yàqu yaaw jaal daan na bu yàqu laa la la ay waay yaa am na ndam ci bisu maître Ablaye Wade waay ndeysaan waaw waaw ndeysaan xoola yaaw ak sëriñam yaa daa am sëriñ yow Abdoulaye ñim suuna gàllankoor jeex na barke Sëriñ Touba mbañum Diop suus ah. Cheikh Amar Kader ah, ah. Souleymane Ndéné Ndiaye Colonel Malick Cissé ñoom Abuja ñoom Lay ñoom Malick waa Poul waare yaw jaal waa téléphone bisu Ablaye Wade doo ci ñaax ñaanu ma ko yàlla barke borom Touba si combat bi ñoom di sant waa Sénégal ñëpp. maay trompeur maa njëkk a trompeur trompeur numéro un ngi nii. waaw ah, trompeur bi ñu doon retour laaj ma sa papa. Ah? léegi ma def ay looy nit jàpp dama koy jàpp daan ma non booy du morom nag xam rek retour quoi xam ne retour dama voyage il faut ma indi benn retour demoon non dama demoon côté côté Gambie laa nekkoon doon fa def ay business sax ma léegi dama retour pour ñëw jëlaat sama tour quoi moom moo mën di waat ci waay dama toog fan yi passé télé bi gis guy gi muy wax ci affaire di ñaa yooyu xam nga man su may wax damay wax ak ñaari gars yi nga xamante ne dañuy pensé mais guy gi c'est un fou xam ma wax moom. qu'est-ce a dit. waaw damay dégg moom dama dégg télé bi mu toog daa booy ñaa ndax bu mu wax ni guy gi moom may dëkk xam nga yow yaa dem seeti ko mu wax ba léegi déggoo ma wax ci moom dara. la nee na na ba na ba naa bàyyi di wër naan guy gi moom mi ñu dëkk booy ñaa nee man maay wër naan guy gi moo ma dëkk moo ma dëkk man ci victoire laa jógee moom ci defal la jógee bu tax ma war koo dëkk. yee ko dëkk na bàyyi loolu muy wax bu leen làmb boole. non man damay xool leneen guur gi li mu fi def kan daal moom koy jël et puis su may bëree damay bëree ay nit quoi mais moom dof la du ma bëree moom. ndaysaan mbokk yi ñaari mbër yaa ngi noonu teel noo jàppante trompeur ak Jokal arbitre bi arrêté na combat bi da koo mbëkk mbëkk tey daa xew xanaa saret mbëkk na yaa arbitre bi sifflé waat na mbokk yi trompeur ak Jokal trompeur ak ngemboo lu weex li Jokal ak ngemboo ngembu Lagos bi trompeur nag nee na mooy trompeur mu mag ma ak ak ndeysaan trompeur laa ilaaha illallah eh, waay ndaw Samba Jokkel daan na trompeur jël bu rëy waay oh laay Njaay waay yow yaay kan yow. man maa urgence dégg naa waa ji de. waa ji bu cuur la lay def. bu bu la lay defaral. bu duuf. man ma defal ko bu duuf rek. promoteur boobu mu ngi dox sama combat. dox na sama combat maag Tafa Boy Bambara nee na staff am moo bañ. dox na sama combat maag capitaine dinaa bu capitaine dinaa bu Yoff mu bañ. dox nañ sama combat maag. waaye mbër mu tapet mi mbër mu tapet mi nu mu tudd. sa Tafa Gueye numéro 2 humilié ko rek feeñal ko. am na mu tënatu xaw ma armée xaw ma booy boobu su ma ko war na ma bañ. xumbal nee na arbitre bu sifflé moo la fi bàyyi. Modou Mbaye yaa ma gën a tey ni xumbal amatul fenn daan cant incha allahu rabi. ay eh, naka la rek alhamdulilah. lu bis jox respect waa rek bëree daan ko. gis nañ la gis ci làmb. nga ñëw tey di bëre si. te ki ngay bëreel mi ngi ci compétition. Mhm. tey naka nga war a bëree. bu sa at bi soufflé ñu xam kan moo nekk ci compétition. moom mi ngi ci compétition parce que moom moo la ëpp li mu bëree fan yi moom laa lay wax ni moom laa lay wax ni boobaa day nduroo ku nekkul si compétition si kàttanu yàlla incha dina dina gaaw ko bu gaaw ko incha allah incha allah ma toogal xaar ma maa ngi ñëw toogal xaar ma mat na fiis ah toogal rek tey looy wax waa naka nga ñëw waaw bis bi pare pare nañ li bis bi laaj mooy ndam xam nañ li ne suñu kanam fi mu ñu mën a yóbbu xam nañ làmb ji fi mu ñu war a yóbbu am na ñu war a bëreel ñoom xam nañ seen bopp loolu dox sax ren ma yéex a bëree li ma war a bëreel xam na seen damay daan kii bëreeg ñoom waaw. tekki rek mu def ndànk. tekki wan la waaw waaye rambax baaxul. waaw waa Fass nañ def rambax ba ne pàccax. Ah. noo tudd. man Ndiol Fouta laa tudd. Ndiol Fouta boo daggee sa mburu loo ci def. Maynes ak Boor. man bëreegu ma. am nga licence. man am naa licence. Ah. waaw man écurie nga nekk Falaye Balde. écurie Falaye soxla. man ku ma lamb boole maa ngi soog a door xamaguma dara defaguma dara. saa nag mbëri laay xaar ñu ñëw teew ma defal leen lu leen ndeer waaw lu leen ndeer sax baaxul lu ne ñàpp lañ leen di may. Papa ak chef douane Alioune Gueye nuyu naa la Papa Gueye chef douane chef douane a ngi dóor ci suuf chef douane ndax fi ngay na jël na tànk yi rasu na bañ na. tuur na ko chef douane jëlaat na tànk bi dex day dugal ca xabal ma la wax lii la ilaha illallah nii nii xam naa ne xale yu bari doole yi xale yi nga xam noo entraîné xoolal maa la wax lii moom it dëgg n'a pas démérité ah ndaanaan la gars yi sama benn maam asa gurwaa la woon quoi xam nga chef douane la tuddoon léegi xam nga ñu toog waxtaan si xam nga sama boobu loolu moo indi seeg douane mais maa fi nekkal douane ku def lu yoon damay nangu lu nga yor. combat bi jël ko daan ñëw. ah ni nga ko ah, ko dam ko liggéey rek di laa entraîné. kele bi ah kele xëcc doo xar ko ànd moom bi mooy sa ñaata combat. trois combats man maay Tóo. man man Tóo laay àndal. yow yaa yor suñu kaay. waaw waaw moo nekk lan ngay mujjee man bu soobee yàlla damay daan wé dóor weexu mbaam ñëw ñëbe ci gi. kii la te sama seexandoo la quoi. xam nga waaji lan lañ ko nar a indi tey. sukk sukk na ba daan xar sa dënd naan sa deret nga fa. moom la ñu moom moom moom moom Tupac la Tupac Machiavel. barki Serigne Touba bu neexee sunu borom ñun dañ koy daan jël bu set wecc amul benn werante. ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi ñi ngi leewaatoo seen diggante am na tuuti distance. waaye Tupac a ngi dox ci kawam. ndaysaan too ak tupak too sànni na moog tupak tupak jàppante nan too ut na tànk tupak xañ na ko ko mi ngi rasu mi ngi dóor ci suuf tupak ak too tupak ak too tupak a ngi dóor ci suuf laay de xam nga ne nag làmb doon na loo xamante ne nii léegi yow boo jàppee yow mi ci suuf boo jéemul def réaction rek wala boo gaawul jeexal làmb ji rek ragal naa boo siggee dootoo ko dolli de ndaysaan too ak tupak mbokk yi tupak dóor na too bëgg na ko tuur tegal na ko 16 ndax da koy daan Tupac ndax daanul too wala lu arbitre bi wax Tupac daan na too Tupac daan na too action bi bëre la rek dafa daw jëm jël ma ma teg benn tàngo xeesu mu wàcc bëggee ma ko woon nii ñaata combat deuxième combat deux euh, deux combat victoire ah, moo ci des kuñ ma jox ma jël rek maa si ginnaaw gars yi di sant sama waa koñ di sant sama maire yëpp yaayu mbër yëpp di sant rakku mbër yëpp di sant ñëpp su ma limee damay juum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Mame Boye na nga def. loo def si lamb. lamb di damaa gunge ah, mbir rek damaa gunge mbir. mbir mbir mbir. mbër nga gunge. man mbir. waaw kii laa gunge. Ah. yaa koy ñaanal. waaw maa koy ñaanal. Ah. waaw waaw. yaa ngi soog a ñëw laa. déedéet sooguma de yàgg naa ñëw de. waaw yàgg naa ñëw de waaw bu eh, am bi ñëw na waaw. maam cumikaay mën nga maa wax lan mooy rôle cum kiy toog ci cumikaay. ah toog ci cumukaay lan moo ko war. <laughs> waaw loolu mënu ma ko wax ci rajo moom. ah déet de daa nekk galaaj daa xam-xam waaw ndax eh, mag bu bi bu duggee ci biir lam ah, di toog ah daa war a seet fu mu war a jàkkaarloo waaw ndax raawaandu yi daa am am boor. waaw looloo tax waaw. yow sa cumukaay bi fi nga ko teg nii baax na. ah alhamdulilah yaakaar naa ko de. Ah. waaw waaw yaakaar naa nekk. ah waaw waxuma ne fii rek de ndax fii ko te ñe. waaw yaakaar naa ko ñeme naa ko. Ah. cumukaay daal xam nga ginnaaw mbër la quoi waaw. damaa dégg ñu ne kuy toog ci cumukaay da nga butéel yëpp war nga mën a xam fu mu jógee ak lu muy jël. waaw loolu butéel yëpp xam nga lu naa ko ah. na combat xumbal la ak frontière xumbal moo nekk seen càmmoñ frontière a nekk seen ndijoor ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo ku ci nekk yaa ngi jiital sa tànku càmmoñ xumbal la ngi def ay déplacement am la ilaha illallah lambi ñaari xale Baye Ndour nuyu naa la Vieux nuyu naa la Pape Tuku Xaadim Dramé ak Issa Laay sama xel ngi ci yéen ñaari ndaanaan yaa ngi leewaatoo xumbal la ak frontière xumbal sànni na góos frontière fayu na laay léeg la laa combat xale frontière sànni na xumbal génn na ko ñoom ñaar ñëpp ñu ngi bàyyeekoo ci banlieue bi kii bàyyeekoo Pikine kii bàyyeekoo Lamsar frontière ak xumbal ñoom ñaar daje nañu attention ñu ngi xeex xumbal frontière xumbal frontière bi nga na ko plaqué xumbal bañ na ku ci nekk yaa ngi wut sa ngemb morom xumbal wut na ngemb xumbal ak frontière ñoom ñaar jàppante nañu laa ilaaha illallah xumbal ak frontière xumbal bëgg na koo xar ndax dina yomb frontière a ngi dóor xumbal dagal na ko laa ilaaha illallah daan jël bu allahu akbar oh! waay waay yëkkati na ñaari loxo yi xale baa ngi bàyyi kii xel xale la day dem ay waay ay waay ay oh! ndeysaan ndeysaan ndeysaan kooku da koo faral kooku da koo faral oh xale bi bàyyi leen ko xel mi ngi ci yoon day dem mbokk yi Brésil ak Feugeula Laye Ndiaye est-ce que modulation jaar na yoon <laughs> ndeysaan maa ngi koy nuyu bu baax Laye njaay ñaari ndaanaan yi ñu ngi leewaatoo Bour Gueweul foo ne maa ngi lay siyaar bëgg a baare coup bi Feugeula ak Brésil ñoom ñaar xeex nañu attention kaawa e. Feugeula Brésil ñoom ñaar ñi ngi xeex laa ilaha illallah ñaari ndaanaan yi Feugeula door na Feugeula door na ñoom ñaar daje nañu ñu xeex laa ilaha illallah ñoom ñaar ku ci nekk dafa mel ni dangaa bëgg épuiser sa morom moom birisili birisili fëgg la ñoom ñaar daje nañu jàppante nañu fëgg la birisili ñoom ñaar jàppante nañu xam naa bëre dina fi feeñ bëre dina fi feeñ wala jël bi birisili ak fëgg la fëgg la mi ngi ut fu mu jàpp jàpp na ak benn loxo bi di ut feneen fu mu jàpp dóor na birisili bëgg na ko bëtt bëttaat na ko fëgg la dugalaat na caxabal bi birisili war na ko ndombo birisili war na ndombo fëgg la ndax da koy daan Feugeula def na trois appui Bruce Lee Feugeula Feugeula bëgg naa jug Bruce Lee bañ na Feugeula jug na ci war ndomba bi ndax day génn géew bi Bruce Lee koy xëcc Feugeula bañ na Bruce Lee Feugeula laa ilaaha illallaah arbitre bi nee na jeex na bu dee arbitre bi nee na jeex na bu dee arbitre bi li mu wax bi arbitre bi yëkkati na loxo Bruce Lee Bruce Lee mi ngi mbokk yi Bruce mi ngi taxaw ak waa Fass mi ngi ci digg géew bi Bruce Lee ndeysaan fëgalam mbokk yi ndeysaan Birou am na ndam ci kaw fëgal FM Sénégal mbokk yi 2STV ndeysaan Birou Sily yëkkati na fëgala na nga bëree ma sax mais sama xol moo fees sant Birou Sily kaay nga wax a ñu war a defal ëpp waaw yóbbu ko soo mu ne dañ laa neexal yow li nga ñëwal ci bisu daanu tey dama doon dee rek mais tey du ma daanu parce dañ ma boot yab ma Sénégal dégg lu nekk moo tay mi boo xool ba ma ñëwee xeexu ma dañ ma yap ne ma bul xeex ak moom yaa ko dàq bëre jàpp ko nga daan. bi nga ko daan ñëwal ma ci nga bëree ak dama ko bënn jaar su poxotaani yokk ko mu wër ko ndomb. dañu gis ne round d'observation bi. songo ngeen ngeen jël ko nga tëb foofu sant ngeen di jël nga ko nga génn saako li war jël naa ku yu bëri mais xam nga dafa am lu ma bàyyi gàlle. ak ma toog ay ñaari weer bëréew mañ ay un an deux ans de bëréew lu nekk dégg naa ko damay mu njëg jaamu yàlla ma xam ne yàlla na ma yàlla fay sama xol man dama bégal sama yaay bégal sama baay ba nu mu génnee àddina waaw sa xel ci kan la xam nañ bii mooy sama vingtième victoire. vingtième vingtième victoire. ay lan la trois défaites laa am. xam nga Sénégal dañuy gis péew ak dës ñu ne dës bee daa ko daw péew. boo xoolee nga xam ne yoon. non. dafa mel ni moo ko laaj. combat ba muy taxaw weer la. fekk maa ngi chargé. per bas waay. bu ma war a def sax defuma mais xam nga si. waa dara di sant waa Maka Koli Banta. Koussanar. Koupantoum. Malem Niani Malem Odar. waa Guinée Fouta Touba sama mbokk jaaxanke yi. mbokk yi jërë jëf gis ngeen loolu moo amoon ci stade Demba Diop mu nekkoon loo lamb bu neex boo xam amoon na ambiance ak folklore amoon na li nga xamante ne mooy sunu cosaan waaye ñi ngi nekk ba léegi ak Gris ma bëgg ñu waxtaan ci lamb mais Gris mbër du du yaru de. mbër du yaru <laughs> non mbër nag moo a du xama nii ko waaw oh, calme man làmb daal moom liñ naan euh, kii daal ci waar ba. mooy fi nga xamante ne mooy làmb ja foofu la ñu war a wane action yi mais bu ñu génnee dañu war a wane yar ndax yar moom waykat yi arab yi ñoo ko njëkk wax arab bi nee na laa xayra fi rajulin xurri bila adabin walaw kaana mansuubin ilal arabi nee na déet yiw rafetul ci doomu aadama bi muy ñàkk yar nee na donte sax yow mi nga xamante ne yow yaay nit ki sax danga nga askanoo ci làkk ci langue bi ñu naan arab ndax langue boobu fa rasulullahi jóge kon nag loolu loolu dollu tamit ne al ilmu bila adabin kalaamu mu dayoon nee na xam-xam boo xamante ne àndul ak yar nee na loolu wax ju yàqu la loolu rek da lay firndeel ne doomu aadama ak loo mënti ak ci lépp looy yëngu yar moom daf cee war a bokk yar du tere bu bu géwél bi sàjjee nga tuus tuus bu dëgër bu arbitre bi sifflé nga dox doxu mbër waaxu wan na leen tey affaire bi man la hasard daal du hasard dafa ñëw nii rek tombé affaire bu naturel la du loo xamante ne damaa toog programme ko du loo xamante ne nit moo ne ma ci demal. pare woon pour nekk mbër. waaw xalaatuma ko woon sama adduna moom loolu moom musuma koo xalaat musuma koo bëgg tamit mais dafa doon loo xamante ne li ma ci dugal sax mën naa wax ne xaw ma ko ndax combat giri combat giri ak euh, baaboy laa commencé nii fekk ma ñëw fi nii di jàng giri am combat ma xaw a arrêté nii jàng bi fii. di ko di ko gunge des fois ñu yeewu fajar dem entraînement affaire yooyu xam nga ak équipe Fass ni ñu xarañee rek mu commencé dem contact premier jour bi ma ñëwee contact ñëpp dañ ne waa kii day bëre affaire yooyu boobu yaakaar naa c'est la première fois ma dem noonu ñu commencé nag di bëre xam nga booy bëree di bëre ay champion yoo xamante ne ñëpp ñu ngi leen di tudd ngay bëre di leen të ñoom seen bopp ñu naan la booy bëree jil moo gën affaire yi gëm ko affaire yooyu man boobu ba léegi demoon naa di contacter teewul xalaatuma woon sax làmb war naa ci dugg pour man rek dama doon fo noonu mais par la suite gars di la gis des fois nit gis la si pet jox la xaalis ne la saawaay seetaan la entraînement rek gis la kontaan jël la or antenne defal la bu baax ne la saa yi lan la fonkal affaire yi am kon affaire bi lis des man may am jom mais tey amul dara lu ma manqué ci làmb lépp loo xamante ne rek champion bi mi ngi koy mi ngi ko war a am rek am na ko ndax képp kuy jàppale Gris yaa ngi taxaw di ma jàppale kon li si des man maa war a am jom pour nekk champion te loolu moom yaakaar naa kenn du ma ko sant kenn du ma ci puus incha allah. bi nga jotee avance bi nak nga ko dundee est-ce que tra psychologiquement tranquille waaw boobu nag boobu nag moom boobu waaw avance su bi ñëw na mais mais boobu maa ngi commencé woon di di miin làmb ndax Gris. ndax boobu Gris maa ngi dend ak moom di ko gis muy préparé ay événement yu mag te maa doon nekk ci wetam ñoo daan ànd di entraîner ma koy accompagner ma gis ko ni muy dundee ma xam ne làmb méttiwul dama mbër yëpp buñ meloon ni Gris làmb du metti ndax lan ndax yi ñuy yi ñuy defante de fois nga dégg mbër dem na kër kee sotti nañ lële dem nañ fële xam nga mbër yi daje nañ fii mais moom yoonam nekkul ci ay détails yooyu moom làmb da ko jàpp rek jël ko def ko affaire sportif sama premier combat ba arbitre bi pour man am na leneen lu ñu war a xaar pour commencer bëre. comme lan loolu laa koy expliqué ma ne ko ba arbitre sifflé taxaw naa di néewtoo di néewtoo mais pour man dafa am lu ñuy xaar quoi pour commencer xam nga <laughs> non. comprendre ma comprendre ma sama premier adversaire jaagar jaagar la woon ma ne sama premier adversaire ma ne bu arbitre ba arbitre nee prix rek. bu doxoon sama kaw jaxase ma damay daan ndax arbitre waaw ndax arbitre bi sifflé na man may taxaw tamit maa ngi léewtoo de mais pour man dafa am ku ma war a wax commencé leen may door a commencé mooy maa ngi taxaw di léewtoo mais xaw ma ne maa ngi bëre xaw ma ne dama war a ñëw rek bëre moo tax waa ji nag ba ma attaqué dóor ma droit ci laa xam ne nag maa ngi ci kon essai affaire commencé benn kii boobu daal benn fee boobu laa xam ne sentir naa ko ci biir làmb ma absenté mais li si des yëpp moom dama naan kii bu arbitre ne prix maa war a tox ci kawam maa ko war a daan. Mhm. nga bëree làmb jooju ñaata combat nga bëri. waaw cinq. cinq combat mais ci ban combat yow ci cinq yi donte néew na mais ci ban la giri de 2 sentir noo tey nag fii laa war a jaaree nekk un grand champion. waaw mooy làmb yëpp rek mooy kon li ma la wax rek ne man pour man ba léegi amaguma combat. waaw man nag franchement parler combat yi ma amagum ci làmb bii passé daal moo ci tane ndax au moins maa ngi doon dégg si nit ñu naan yii ku ma dajal mu ne ma yii saa am nga combat nag ndax ki ngay bëreel nii triple champion d'Afrique la def na lii def na lii kon nag ma ne ah kon de bi am na am importance. waaw mbokk yi dégg ngeen loolu ah moom ndaanaan la boo toogee waxtaan ak moom di nga xam ni macha allah ndaanaan la nante la tamit <laughs> mais comme ni ngeen ko waxee woon ah, maa nga Production. tëggoon nañ làmb ju mag joo xamante ne amoon na ci terrain pes mu nekkoon làmb ju mag joo xam Ablaye Ndiaye la grand caméraman demaloon nañu fa dañ leen di bàyyi ak ab lay Ndiaye ci Bantamba ak la 2STV yi grand lii yàgg nañ ko bëgg a def mais tey la occasion bi am donc pour ma porter drapeau mais pour man mbégte la parce que dama jàpp ni euh, maa nga ku mu ñaanal rek yàlla mën na la mën na la suturaal tey bu jëlee làmb tuddee ma ko en pleine campagne dafa am lu muy wane donc vraiment dama koy gërëm di ko sant maa nga moom référence la ci làmb au Sénégal kenn du ko wax université la bu ñuy tànn les univers les de la lutte au Sénégal dañuy tànn maa donc su nekkul euh, donc recteur bi du ko sori donc vraiment dañ koy féliciter féliciter Manga Production am 60 lutteurs ci temps bu métti bi jamono bu xat bi loolu day wane ni c'est parce que moom lutteurs yi respecté nañ ko. Euh, waa 2S dama leen di remercier euh, kontaan ci ñoom parce que à chaque fois su ma amee événement rek ngeen participer ci événement bi donc wax ne événement bi tey dafa nekk loo xam ne leçon la parce que même le président de la République dafa def appel ñoo xam ne képp ku nekk ci ko xam rek. liggéeyal jeunesse bi Moussa nag di liggéeyal jeunesse bi di liggéeyal ASC bi di liggéeyal école de lutte bi di liggéeyal écurie yi kon nag képp ku am mouvement di yëngu fii rek Moussa mu lay jàppale kon la preuve étant donné di tey mu wax ne du am kenn du fey dërëm te ku bëgg a seetaan si làmb di nga ñëw seetaan si làmb moo ko may wax Parcelles Assainies donc je pense que c'est une première te loolu la ñu soxla ma wax xale yi appel bu ma njëkk a def bu ma ñëwee ci xale yi exemple lañ leen di jox da ngeen bëgg a nekk ay champion di entraîner ci plage bi ñu doon dafa fu leen di entraîner amuleen leen fu leen di compétir tey ñu tegal leen 500000 pour ku nekk am lu mu yóbbu ci këram donc jërëjëf la ñu mun a wax ci Moussa. Mbol Ladoum daan na Franc laa ilaha illallah oh Mbol Ladoum daan na Franc Modou Ladoum daan na Franc ndeysaan Manga production woo defi lamb ju rëy jël la drapeau tuddee ko monsieur le maire de Basse Séné Moussa Sy diggante Dame Sène ak Modou Ladoum Dame Sène ngay wutu ngemb ña ngay bëre Dame Sène ngay jàppante ak Moussa Sy laa ilaha illallah ndeysaan laa ilaha illallah oh, oh, oh Modou Ladoum daan na Dame Sène jëre ngeen jëf mbokk yi gis ngeen loolu ah moo amoon ci terrain ak APS parcelle Manga production moom tamit ñuy ñu koy félicité Manga 2 le roi des arènes ndax mi ngi jàpp ci loo xamante ne mi ngi avancé làmb wax dëgg yàlla lii dañ koy bëgg nekk ci làmb nekk ci champion ba doon ci roi des arènes nga jóge ci nekk promoteur di ci jàppale xale yi nga xamante ne ñu ngi ciy yëngu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñëpp ne Maodo bu jàppante ak Auguste Maodo dafay daan Auguste amul amul werante loolu doole jooju foo doole yooyu nag moom mooy rek li ma la wax si ñi ma la tuddal fii si ñi ma tuddal fii foofu laa ko jëlee mooy ñooñu ñoo ñuy tàggat du ñu bàyyi dara te ñooñu dañoo yàgg ci làmb bu ñëwee rek bu ñu gisee sa adversaire rek automatiquement dañ lay wax ni nga war a préparer pour moom ñëw rek dama yow kii dafa mën a bëre mais yow sa bëre moom da koy umpale da koy umpale ndax daje goo làmb bu jaxasoo wala yow ak mbër boo xamante ne da ngeen te da ngeen tolloo ngeen tolloo niveau daje ak moom moo tax gars yi mënuñu xam li nga mën ak loo nga mënul moo tax nag kii loolu da koy bett si yow doole tamit dina ko bett si yow na mais boo leen jàppantee moom dina xeeb li mu préparé. ñoom ñaar. attention doorante nañu doorante nañu Auguste jàppante nañu jàppante nañu oh, oh. jëm na koo wéyale Auguste xaw na koo wéyale Maodo dem na jàpp na ci ngemb Brise 2 jàpp na ci ngemb kal na ko bañ na bëri bu métti dugal na tànk ba mu bañ dama kañ noo def ba bi moo tax xoolal lamb ji ni mu mel waaw lamb ji booy tëgg tëggal lu lu <laughs> yi bëgg bëri dëgg ñu ne coow li wàññeeku na ci lamb sabar yi ci ña nga ca suuf ña nga ca suuf ña nga ca suuf ña nga ca daan na ko. daan na ko. daan na ko daan na ko. daan na ko. xale nag. ah daan ko rek subitement sa réaction. mooy rek dama liggéey rek mooy rek maa ngi commencé kon li may wax gars yi dañuy door a commencé rek yàlla xam na ne liñ jot a def ci làmb billaay xooluma ko sax boolewuma ko sax si sama palmarès man pour man li ci kanam nag loolu nag pour man maa ngi nii sama première combat déwén lay commencé. nu sa combat di commencé déwén te ñu aj la. ñu waxtaan ci loolu. ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw ci combat bi combat bi passé. ñu dégg ko ne ci actualité bi ñu ne Gris ak nañu ko un ma ñëwaatal ma ci problème yi ci am ak li ci xew ba aj bi ñëw. waaw problème bi de benn waay la xam naa ci accompagnant Auguste yi la damaa taxaw yaakaar naa bépp amateur de lutte bu nekk keroog stade gis na action bi nu mu demee dafa ñëw te bu benn poudre bu weex xaw ma poudre lal la ñëw fekk moom ma taxaw ci géew fi may préparé mu ñëw sotti ma ko. ma ko sottee nag après di dox di dem daf ma ko sottee aisément di dox di dem yoonam ñi ma àndal am kenn ku ko topp mu daw kooku nag di xeex ak di xeex ak ñoom ma ma ñëw ma ñëw pour atte affaire yooyu am benn waaye bu ma bëmax ma ni ma ma dóor foofu dóorante am fa quoi ñu échangeante ay coups dégg naa am benn nit bu fa bu fa RK tamit toj gars tamit déclaré loolu lañ ma suspendre waaw loolu lañ ma suspendre un an kon li ma la wax rek bépp discipline bu am ci adduna rek dafay am ay règlement réglement bi mooy li CNG teg sama kaw loolu mënuma lu dul accepter ko te dans les bu amul benn discipline bu am fayu kii mooma tooñ ma fayu yaakaar naa ñaari joueurs yuy football sax kenn ki bu weexee kenn ki keneen ki fayu ñoom ñaar ñëpp la ñu jox carton rouge noonu tamit la demee mooy dama fajal sama bopp te fajal sa bopp amul si benn réglement looloo looloo waral tamit liñ ma teg ma accepté ko ma koy accepte force. accepté ko d' accord nañu mais aussi yaa ngi soog a door dafa goo ci làmb deux ans wala boo dafa goo ci trois ans yaa ngi bëreeg cinq combats ñu aj la est ce que teelul wala est ce que bokkul ci luy arrêté luy xaw a gàllankoor carrière moom. waaw encouragement waaw mën na nekk ndax bëre deween moom yaakaar naa du solution man ba ba gisee un an yi sax source laa ko tegoon après par gars yi ne ma un an ferme l yoo xamante ne mooy loolu. ba pare man it ma xool samay encadrement wax ma comme que ñun ci écrit bu mag lañ nekk ne non lii un la mais dinañ ci jéem bind ay lettres yoo xamante ne pour jéggalu la ndax jéggalu instant yi état boobu lañ toll mooy dem rek jéggalu ndax ku tooñ moom yaakaar naa buñ la tegee ci yoon baal ma rek moo fa am baal ma te duma ci delluwaat te loolu yaakaar naa violence moom ku koy xeex ba ñëw ci man yaakaar naa di nga gis ko la ko xeex la ndax man moom boo ma xoolee rek di nga xam ne kii moom doxul si violence mais keroog lu la bett mën la ndax loo xamante ne comprendre te loo xamante ne mosu xalaat ne sax nit amee na noonu fit te li nga wax sànq ne mbër du yàmbar mbër du tooy comme man loolu ci la bokk lu tax nit ñëw du mbër du dara sëñ a tibb loxo benn sunguf jàkkaarloog yow face à ñëw ba si yow sotti loo ko naa sama noppi sama noppi ak yar moo tax loolu kooku nit kooku am fitu def ma ko ndax yaakaar bu doon yeneen mbër yi yëngatu dëggantaan nit sa sañul wala kat boo koy def sax nga làqatu mais kooku dafa ñëw jàkkaarloo man loolu mooy kii tooyamaan la loo ko def du yëngatu <laughs> man loolu laa ko jàppee mais ma it ma réactionné si. xelu xale. waaw réaction à chaud mooy nit moom mooy xol moom day yëngatu ndax yaakaar naa préparé def sa xaalis si sa làmb préparé ba ñëw. di ñëw tibb leen dina la lool loolu du neex a comprendre nit rek yëfu nit rek yow doo ko bëgg waaw te yow it doo xam li mu la sotti lan la gars yi ñi ngi wax mais man tey nit ko ki ko sotti bëgg naa ko gisaat ba ne ko li nga ma sotti dama bëgg nga wax ma ban genre affaire la ba ma mën a mën a aar sama bopp ndax ba moo bëree ba léegi nag tey feebar suba kii ta xaw ma ndax liñ ma sotti la wala du déet non doo comprendre moo tax nag ki préparé ay affaire am toog këram moom ak mbërëm préparé ndeg lii pour bu ma demee sunu adversaire bi ñuy bëreet lañ ko war a sotti kooku moo jug pour yàq làmb mais ki nga xamante ne kooku dafa réactionné sur le sang kooku day juum nag dañ ko war a am luñ ko teg moo daal liñ ma teg nii dama ko accepté ba pare nag di jégalu di ñaan ñu dindi ko ndax man moom yaakaar naa loolu dootul amati kenn kenn dootul kenn dootul gisati sax. <laughs> yu mu werante waaw waaw kenn dootu gi ku ma sottati sotti lu leen neex. baal naa leen mais mais mais mais mais information bi nouvelle bi naka nga ko jote ak naka nga ko dundee bi nga ko jotee. waaw bu mu joxee nag xaw na ma perturbé xaw na ma perturbé quoi xel ma ñaan ndax dama yeewu rek sama benn xarit Alioune Badara moom woo ne ma waa yow suñu làmb mu ci gis ñu ne dañ rek ndax daf ma yem ma ne ko da ngay tooñ rek. loolu sañ ñu ko mu waat mooy wax mu indil ma journal bi ma liir woo sama ménagère mu ne ma ah c'est vrai de affaire yooyu ma ne ah affaire bi nag xaw ma jaaxal ma xalaat boole si nag appel yi di jóge partout fu nekk nit di ma fa waaye lii c'est pas normal lii c'est pas nii lii lii mais yow ba nga toogee tamit xalaat ndax franchement woo nañ ma attendre ma déglu ma mais keroog bañ ma wooyee ba ma génnee franchement dama am satisfaction si si CNG. ndax maa ngi génn yaa naa gis fa benn copain sow ñu taxaw di waxtaan man ko man pour man CNG daal benn père Aline Sarr la rek ak benn Thierno affaire yooyu père ma ne ko loolu laa toon mais ndaxte ñii ñëpp CNG lañ bokk te ay kilifa laa fa gis keroog ñu toog di wax ak man ma xam ne kat ku sañoon discipline bi ngay yëngatu am ay kilifa yoo xamante ne ñoo yor yi te keroog loolu laa gis ci CNG moo tax ba lii amee tamit dama ko accepté ndax dama naan xanaa ay kilifa du ñu dajaloo di jël décision boo xamante ne. décision pour yàqal la la wala dara décision bi pour yaraat gars yi la te yaraat gars yi naa amul xàjj ak seen donte sax dañ nañ gis yu mel nii di ci làmb buñ ko commencé si man dafa baax ñu wane ne léegi lii moo fi am ndax yaakaar doon nañ gis yeneen exemple yu mel nii di am ci làmb ay nit def la dara nga jam ko mujjul fenn affaire yooyu loolu day yokk kon tey buñ commencé si man yu mel nii loolu day baax pour ñeneen ñi xam seen bopp. mais man de xawma kan man de du ma ba ma xati sax nit buy dóore. <laughs> seer Ablaye Ndiaye Gris 2 la ñëpp bëgg te buñ la ajee est-ce que du tax Ablaye Ndiaye dépassé la. non man moom képp ku ma tollool génération gëw ma ne di nga ma dépassé ma ne mën nga ma dépassé tamit man loolu sama gëm-gëm loolu la meilleur de génération loolu laa opté mooy ñi ma bokkal làmb ji ñu ay morom duggandoo ñoom ñëpp rancé wu sama ginnaaw. mais Maodo Laye Ndiaye ñëpp ko bëgg. waaw ñëpp ko bëgg moo tax waroon na am bu yàgg. xam nga ne man. est Maodo moo doon daw dégg na. non boo laajee promoteur yi ñoom dinañ na la Maodo moom <laughs> amul mooy amul problème koo ma woo ma ne la waxal ak staff bi man yaakaar naa ku écrit fa ne wa prip mooy man moom pare naa. kàddu yooyu moo jóge ci Gris 2 pare guñu ak moom ndax xam ngeen ni sa samedi le 21 juin nekkoon bis bi nga xamante ne nii mooy doon fet de la musique Alaaji Bekaay def cee woote bis lamb ju mag FM Sénégal wala ci lamb ju mag joo xam amoon na ci stade Iba Mar Diop. jamteer yi bëre fa ak Boy dafa leer bëre fa ak Mambala mu amoon ambiance amoon culture nekkoon làmb joo xamante ñu ngi ko duppe woon Lat jóob ko wax Lat jóob wax jeunesse ko wax Lat Diop wax jàppalekatu xale yi ñu ngi ko tuddee woon frère ki nga xam mooy Baye Demba tuddee ko jarbaatam Titi tuddee ko it jigéenam Ndeye Nar Thiam. mbokk kii dañuy ànd ak yéen ñu dem stadium Iba Mar Diop seetaan Bisu FM Sénégal Thierno Mbaye Nogoy mbaay maa leen di siyaare. Ah, nga sañse nii. ah, ah lépp rek ci gunge si sama doom. lépp rek si si sama doom. Ah. waaw laat lañu gunge ah. kontaan ci waa Golf Sud rek. eh Sa Thiès daw na de retour. ko jëm bërel bërel ba mu ne koo jàpp di ko daan bërel dama koy daan. naka la combat bi di demee tey gaaw wala day yéex. cinq bu soobee la ma daan am xeex. dinaa ko duma bu nga xeex. américain. waa ji nee na bu lay jàpp rek di la daal. loolu waxu mbër bu tiit la. waxu mbër bu tiit naan ma la jàpp dama lay jaar. xaw ma mbaal la xam ne dama mbaal doo ko jàpp daan ko ci kattanu yàlla. ay jor ko jox ko ñëw jor ko gaaw. ci kattanu li ma bëgg de dama woy ne que laa ma jàpp mooy daan ko incha mais sant yàlla. julli ci yonent bi ndaxte lii lépp dañuy essayer rek dañuy essayer mais yàlla baax yàlla dolli nañu sutura ban niñ ñi fa tubaar fakal la ñëw nañu bu soobee yàlla lépp dina baax. gars yi nee nañ kontaan nañu ci ni ñu doxalee billets yi. 1500 bi 2000 ko incompréhension dafa am. waaw waaye ñoom dañ koo tàmmul xam nga promoteur dana ñëw rek ni 1500 lépp mais nag làmb ji dafa cher il faut ñu essayer nu comprendre ñun ay débutants lañu ñu jàppale parce que ñun amul lu dul Sénégal danoo ñëw pour Sénégal jàppale nu man nu jàppale. Ndiaye numéro 2 Aliou moo ne troisième combat. ah jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñoo ngi fii ci stade Iba Mar Diop ci deuxième journée FM Sénégal mbokk yi muy journée boo xamante ne nii tànn nañ ci ay mbër yu bari tànn nañu ci. ki nga xam ne moo di Lat Diop moom lañ tuddee drapeau bu mag bi di responsable politique dëkk ci golf di xale bu yàlla baaxal bëgg jeunesse bi bëgg fa mu dëkk ñu tuddee ko jam ciiri ak booy ngaay jël titi tuddee ko tafaaleer woykat bu mag bi tuddee ko tafaaleer ak mambal arbi bi sifle na Tombé Sène ak Forza la ñoom ñaar ñi ngi xeex ñoom ñaar seen xeex bi jaarul yoon de Tombé Sène ci kawam wàcc na Forza jàpp na Tombé Sène ndax ñoom ñaar ci suuf waaw waaw Forza 2 daan na Tombé Sène Forza 2 am na ndam ci kaw Tombé Sène laa illallah combat bi bari na xeex am na bëre bëre ba jaxasoon Sikori mooy bëre ak Jalma Njool Sikori moo ngemboo ngemb bu bi Jalma Njool Sikori Sikori ngi dóor Jalma Njool Jalma Ndiol Sikori dóor na hop Sikori dóor nan la takk nan la takk nan la takk nan la takk nan la daan nan la Sikori takk nan la daan nan la Sikori takk nan la daan nan la ndax di nga xeexee baaxul. dafa mel ni Sikori dafa profité combat bi ah xeex bi baaxul. waa xam nga ñoom seen niveau soriyantoowul bu baax moo tax combat yu mel ni en général ku gën a gaaw rek mën nga gagné combat bi. bu FM Sénégal amee bis bu mel nii. am na ay sponsor yoo xam ne ñoo ci jàpp muy Lonase. li nga wax rek moom laay firndeel Lonase dañ ni la fortune aux souscripteurs mais les bénéfices à la ci dugal seen xaalis ci am dara mais la ci des ñu delloo ko ci askan wi yàlla jox ñu directeur général boo xam ne nag bi mu ñëwee comprendre na message boobu békaay mu ngi ci sport bi mu ci santé bi mu ngi ci éducation bi mu ngi ci culture bi ci ndimbalu nag directeur commercial am Alaaji Malick Mbaye Edouard la jox Edouard la jox waaw bés bi rëy na trop kontaan nañ trop. yow moom xam eh, nga. yaaw yaaw lan la. man daal dama xawoon na naqar tudd quoi ma ne Moussa Dioum xam nga la ma ko waxaloon dara amu si dama leen soob rek yaaw jaal parti moom mu yóbbaale woon rek ma dem. naka nga xoolee Moussa Dioum kilifa gu toll ni Moussa Dioum di mu mag nga dem yow amoo doole wax ngay jëw Moussa Dioum ci télévision. soob man la yoo xam ne yaaw jaal comédien la yaaw jaal du nit yu savane. waxal Moussa Dioum baal ma. non Moussa Dioum baal ma ak man xaju kaaras laa damay mbër ma mate. dara amu ci. dara amu ci damay soob. quatrième combat moo koy bëri moo ngem boo ngemu bu fiole bi. Mbiita Ndiaye ak Aloubadou. Mbiita Ndiaye Aloubadou. Aloubadou dóor na mooy na. Mbiita dóor na. Mbiita daw na jàpp na ci ngemb li. daw na jàpp na ci ngemb li. ña nga ca saako ya. ña ca saaj ñu ngi toog ak l'an 2000 o oh ma nga jëm suuf Alubadu wéyale na ko ma nga jëm suuf Alubadu daan na ko Alubadu daan na ko daan na ko jël bu rëy. Euh, nit ki boo ko sàccee doole boo demee ba sonn doole ji day ëpp doole gi day des bu bu la ëppee condition physique fu mu la jëmee nga jëm fa. combat bi métti. waaw métti na trop mais waaw lépp liggéey la rek waaw ñun si entraînement lañ dëkk dañuy entraîné matin au soir. waaw kon lu métti métti tamit dañuy tenir rek ba génn si incha allah bu neexee yàlla. bisu FM senegal sunu frère am ci bis mu di dem ba te ku ni Baye Demba ni seng-seng te ku ni seng-seng sa xel war a dem ci Vieux Seng sa xel war a dem ci Mbaye Gueye Faye mii toog di magam mbay lu ne mu def ko ci aar jël sabar gi yóbbu na ko sax ci réew yoo xamante ni xamuñu woon sabar tey jii bis bii di bis bu am solo. béykat yi ma kontaan ñëw fii tey. ñëw ci lu nu miin muy drapeau waaye gàcce ngaalaamaa yow lii yëpp yow a ndax nag bëgg nga sa askan alaaji Bécaye fonk nga ñi nga bokkal fonk nga réew mi fonk nga say xarit fonk nga say doomi ndey kon nag dama naan yow gàcce ngaalaama Bécaye Sénégal moo la soxla tey nag ñu teewal fi nag sa deret sa askan sa xeet muy Baye Demba e muy rakk joo xam ni nag dañ koy bége naw ko lool fonk ko alaaji Bekaay Baye Demba rakk ju baax la rakk ju fonk ay magam fonk ay waajuram fonk ñi mu bokkal ñëpp tey jii bés bi fekk ko mu nekk états waaye mel na ni mi ngi fi ndax ñu ngi fi ndax maa ngi ànd ak euh, sama goro Abou Gueye ñoom Jibi Diop Faye ñoom Riche ñoom Fallou ñoom Alaaji fay euh, ànd ak ñoom Badou Jaxate askanu yëpp ñëw eh, lii nag moom mooy li ñu war a def waaye nag yow nag yaa dolli ci cin li xorom. mbokk yi combat baa ngi noonu. quatrième combat baa ngi noonu waaw maa ngi ñëw. ah arbitre bi arbitre bi joxe na victoire diggante mu. kon mbokk yi Arlem moo daan noonu Mirador ñu xool euh, Tapha Gueye numéro bàyyi Modou Mbaye Serigne Mbaye Mbaye Gueye Faye ak Abou Gueye Mbaye Gueye Faye dootoo Faye morom Maramba Diagne Mbaye Tako Diagne Elimane Gandiol Tenteexul Géej Pa Jibril Diop te néegi yoof mengi mengi yoofi géej sekki sekki néegi mbaaw lay maxtaar barki bàyyi laay mbokk kon ba tey ñoo ngi stade Iba Mar Diop waaye ñu ngi toog ak Abbas ndax Abbas moo fi teewal nday naar caam sunu jigéen bi nekk Suisse. ragal naa ni yow mi ko tuddee làmb ji ñàmbaaram ak nangoo liggéeyam ak am jomam moo tax nga tuddee ko ko ñun ñu ko fi teewal yàlla xam na ni jot gi mayi ñu ko ndax dañu nekk ci campagne ca commune ba mais dañ ko fa bàyyi ñëw teewal ko ndax suñu jigéen la suñu xarit la ba pare nag ñu naw ko ndax am jomam ak nangoo liggéeyam. nga am lépp làmb may am na la may ngay naa ci delloowaat ko ci xale yi kon nañ la jàppale na la Sénégal jàppale na la sponsor jàppale wuy si la bu baax a baax ndax yaa ngi béy sa waam. ndeysaan mbokk yi arbitre bi sifflé na combat bi Modou Lo ak Pafay mbokk yi Modou Lo moo leen wan ginnaaw Pafay ngeen jàkkaar lool Pafay dóor na benn ku laa ilaaha illallah yéen a ngi bëree yéen ñaar ci bis boo xamante ne Modou Lo jël na tànku Pafay fu ñuy mujj ñoom ñaar ndax da koy biij biij na ko maa la wax lii lu arbitre bi wax lu arbitre bi wax ndax day ànd ak moom ci suuf. lu arbitre bi wax ndax day yëkkati loxo Modou Lo wala ndax day yëkkati loxo Pape de toutes les sortes daal jël am na jël am na ci làmb ji jël am na waaw waaw arbitre bi nee na Modou Pape am na ndam ci kaw Modou Lo bi wala arbitre di dañoo juum. man jaaxal na ma paala paala bopp bopp bu laal suuf te daanu nanguwoo daanu wala dafa daan ba pare. waaw arbitre bi moo juum parce que bi mu jëlee adversaire am di ko plaqué pour woñ ko. arbitre bi dafa def rotation tëgg ko nooju mu dóor bopp bi foofu nag règlement bi bi di yi xoolee règlement bi këlee la ñu war a jox jël bi parce que kii bi mu jëlee tànku moroomam di ko woñ dañ ko nooju bàyyi ma ñoon numéro 2 moo nekk à droite wala moo leen won ginnaaw africain moo nekk à gauche njoon deux dool na dóor Ndiol doo ngi dóor Ndiol noo ngi dóor na ko jël na ko jël na ko jël na ko africain sotti na ko ar africain sotti na arbitre bi arrêté doy na waar doy na waar ñaari combat ngi nii ah. fii moom jël la eh, bu njëkk ba nag ñaari combat ngi nii xaw na jaxaso même bu njëkk bi ñoom bu ñu ko visionné gis ni chute bi ñuy wax amul dañu war a def recours. 25 eh, non man gisuma fi jël naa. moom moo tax nag dañu war a def recours. boole ko parce que africain daanuwul de. même africain loxo baa ngi ci kaw. benn loxo bi la teg. xam nga semaine passée jox nañ fi benn xale defet te fekk na loxo baa nga ca mu mbër ba. mais chute bii moo gën a yéeme africain laalu fenn suuf. coow laa ngi ci diggu géew bi waaye bu ñuy jox africain defet nañ ko jox defet bu wóor waruñu mbër kenn mbër du préparé ñëw ba fii ñu lay daan ci caaxaan. loolu surtout sax bi joxe verdict bi côté ba mu nekkee ak côté bi euh, xale bi xale yi demee suuf. waaw bokkul kon waroon na tey bala muy ñëw di wax ne kii moom moo daan. Modou dafa mel ni d'accord woon mais dama am lu ma metti billaay ñu liggéey ay pour suñu combat ñu ñëw yaakaar ñu leen bëgg lekk suñu téeméer. ñu ngi lay gërëm booy garaaw yàlla baax da ngay def recours kay na perdu meri na ma ñi ma àndal ñi ñëpp mbooloo mi bu la balaa ngay gis ma ànd ñoom tey jii nii. non non non non non non eh eh non non booy booy déedéet bul jooy garaawul su ma daanu woon sportif laa ma nangu ko mais CNG war nañu respecté ñun xale yi dañu jënd ay yow xam nga li ma ay 200 bii sonn def ci ay xaalis loo xam ne mbër mbëri magi sax duñ ko def ci combat ñu ñëw ñu ñàkkal ñu fay la ah sama man sama ooma sama benn ooma sukk sama loxo yëpp dafa ñaaw sax. sa ñaari loxo dara laalu suuf. dara laal suuf booy naar nii la ma defoon nii ñu jox ma defet dafa métti. war nga ne daanoon. billahi dama kaa daan. ki dama ko ëpp doole. ak dox sa carte arbitre bi laaj na leen ndax pare na mais nag arbitre yi erreur yi nii def paa bari naa. ah way baaxul. parce que gar yëpp daw nañu envahir géew bi moo tax ma ni nañu yor ay drapeau. dox sa carte tupaak dox sa carte tupaak ñi ngi xeex dox sa carte moo ngemb ngemb bu ñuul bi dox sa carte na tupaak tupaak bañ na dox sa carte doo dóor ya ngay xeex. dox sa garde moo ngeen boogee bu bu ñuul bi tubaab moo ngeen boogee bu weex bi tubaak topp na ko et eh, buñ ko daan na ko daan na ko yaa safurlaa dox sa garde daan na ko dox sa garde daan na ko lu na lañ ci daj ci combat bi mais maa ngi koy maa ngi koy ñaan yàlla ak maa ngi ñaan yàlla ak ay mbokam ñëpp maa ngi leen wax ñu jàppale ko lamb nii la demee quoi tey nga daan suba ju daan. tey nga daan suba mais maa ngi koy mu góorgóorlu parce que la combat bi lu ne lañ daj entraîné na lu mu war a entraîné mais yàlla bu ne déet du am mbokk yi ngi toog ak le parrain Lat tey ñu tuddale bis bi nga dégg coow li ci làmb ji. maa ngi lay gërëm njëkk di la jiital ci nuyu bi yow mii am xalaatu tuddee ma làmb ji tey waaye day mel ni boo ma ko tuddee tuddee nga ko géejawaay yëpp tuddee nga ko golf sud yëpp waaye tamit tuddee nga ko président de la république Macky Sall ndax mooy sunu lépp mooy suñu kilifa di suñu lépp euh, yéen gis ngeen làmb ji ni mu mel jeunes yi mu engage donc mu doon lu rafet. mu doon lu rafet loo xamante ni ñu may espoir ci sunu jeunesse li may wax rek mooy euh, boo gisee fi ni mu demee nii ak jeunes yi ci nekk lépp damaa jàpp ni war nañ mën a réfléchir aat pour vraiment gën a organiser waat làmb ji pour xale yi gën a mën cee jëriñu loolu je pense que loolu mënul ñàkk mënul ñàkk ni ma gisee yëf yi ak jeunes yi fi nekk ak làmb ji jeunes yi mu mën a dimbali il faut ñu organiser waat làmb ji. Mbaye Gueye Tigre loo wax ci. parrain bi nga xamante ni moo di Lat Diop ak bis bi mu parrainé. waaw ah, di ko ñaanal yàlla rek gudd fan ak wér gu yaram walla ko ñaanal man su guddee fan wér rek ñu bëgg Sénégal dinañ ko am incha allah man am fu mu nekk parce que yow saa su diggante te yow ku baax nga Lat nag sama doom la sama lépp la maa ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram rek. bi Bantamba ñëwee ba léegi mbër yi tere seen ndey seen baay am ay kër ndax yaa leen wane yaa ci tapas yaa dem ci baraag yi bi la bi nga xamee ne àll bi dafa lëndëm yaa dem fekki mbëri fuñ daawul ne nga fekk leen fa génne leen. ñaar pour daan déclassé nga. Paala yaakaar naa ni Mame Balla ak Tapha Leer combat gi de. bégaay combat naqaree commentaire ngi nii. combat boo xam ne amul favori. mbokk yi arbitre baa ngi waaj Titi. Mame Balla Tapha Leer Mame Balla Tapha Leer rek doyoon na bu mag doyoon na bu mag parce que ñoom ñaar Mame Balla daw na jël na Tapha jël na tànk jël na tànk ba Tapha bañ na ma ngi koy wër Mame Balla daan na Tapha Leer ah. ah, moo taxoon ma du combat bu neex a commentaire amul woon favori ku gën rek mën nga ko gagné Mame la daan na jël bu rëy a rëy tey. wa da may mu yegg ko fu sori moment bi muy yegg si ne yegg nañ ci kawam avant muy rëcc daan na ko lam ko may moo bëri béykat. combat bi mooy ni que liñ ma conseillé ak liñ ma entraîné liñ ma entraîné moom chaque jour dafa jàppoon ci maanaam xaw na ma ëpp doole ci gisam-gisam waaye man li ma entraîné man jàppoon na ak Baba Wade dafa ma billaahi wallaahi sama ba feebar ma koy ñaanal mu tane ci ni non du caaxaan dama doon dama pare rek pour man bu déwénee incha allahu rabbi ma xool ci ñeen catégorie yu mag yi fëgal dama ko doon laaj mu naan nangam ak naa xawma moom Balla soxlaatuma ko ñeen laa solo ci kattanu yàlla ñu ko raw wala ñu ko daan. man dama naan ba Balla du def lu dul bëre. père du caaxaan de ba ñëwee stade man ambiance laay de foo kafre ba dañuy jàpp ni sama entraîneur sànq dañu may woo naa ma carrément bàyyil kafre bi bàyyil kafre bi nekk du loolu mooy ne may wu jàpp ni combat bi après biir géew bi la man loolu jàpp tout le mboos neex waaw loolu dafa leer far yàlla ñu ñëw Mame daan jël bu rëy ñun ñëpp waa Pikine kontaan ci man ma am combat di ko préparé maag wulli ah bala jóge ci combat bi jox ma 2 millions 500 ne ma préparé xam ni dafa gëm ma ren la gëm barke Serigne Touba Mbacké 2 millions 500 la ma jox ne ma préparé wulli da ko war a daan jël bu gaaw parce que gars yi nee nañ doo mbër affaire ko war a daan Assane Ndiaye moo ko tëgg la ma yaakaar ngeen du tëj saison no non dinañ bëri saison bi dem na yokk nañ ci 3 mois maa maa wuli dañuy bëri wuli dama ko war a defaral affaire. ñuy am mbégte lool nag ci Titi ci Baye Demba ak Ndeye Naar Thiam FM Sénégal kontaan ci ñoom. booy ngaay bu ma doon yow duma indi xeex bëre laay indi bu ma doon yow damay mel ni luy xeex ta xeexuma ndeysaan ñoom ñaar ñëpp ci defet la ñu jóge jab cëri wala booy ngaay booy bu yam céeri sol na ko booy ngaay bañ na dox sa garde moo daan tupak jam céeri bëgg na ko fàqat pour tibb ko bañ na jam céeri daan na arbitre bi nee na ko daan ko daan nga combat na ana loo wax yow da man ba léegi sama loxo ñu ngembali père ba léegi sama loxo sportif la amul problème dañ koy pare xama amul problème quoi ku war a daan daan mais nag na leer man bi ma xoolal bi muy fàqat sama loxo ngi ci ngembali loo wax ci victoire sant yàlla bu wér parce que juum daanu mu ñëwaat pour fee maa ngi sant yàlla bu wér sant yàlla bu wér di sant waa Kayar waa Jëndeer mbokk yi lii mooy drapeau Lat Diop mu nekkoon bis boo xam ne le 21 juin la muy fête de la musique Lat Diop di xale bokk ci réew mi di doomi réew mi di liggéey pour réew mi ñëw pare ne drapeau bu mel ni lépp mu def ci lu rafet ñu ko ciy gërëm di ko ci sant di gërëm titi ak mbokkam yi ko fi teewal ay magam ay frère am sœur am yëpp ñu ngi leen di gërëm di gërëm Baye Demba fay sama frère Mbaye Gueye fay ak toute la famille Seng Seng di gërëm Ndeye naar Thiam ak Abbas mi ko fi teewal ak jo ak ñi fi teew ñëpp pour bisu tey bii di gërëm képp koy amateur di gërëm toute la presse di gërëm Sénégal yëpp di ñaan yàlla ñu dellu si waat ci defaat ko mu dawnaat beneen deuxième drapeau Lat Diop léegi li ñuy def mooy bàyyi Lat Diop mu jox drapeau bi jam ceeri mi nga xamante ni moo gàddu lii di ndam li jërëjëf merci gis ngeen loolu moo amoon ci stade Iba Mar Diop mu nekkoon làmb joo xamante ne nii neexoon na trop waaye mais damay gërëm grand bar first class ndax mooy génn ak man ci yu rafet yi mooy génn ak man ci yi nga xamante ne nii yëfi xale rek la nee naa leen ay xale lañu dañuy fo grand bar ah. waaw ay grand bar kooku suñu grand la ay membre fondateur lañu si si sama jëmm ji toog moom ñoom Ibra. grand Central Park ñoom ay nit lañ yoo xamante ne ñoom it dañoo bëgg giri ba tax na man it dañ may jàppale bu baax a baax a baax mais affaire yi moom war naa ci am tamit <laughs> te dina la si jox dina la si jox mbokk yi xam ngeen semaine bi làmb ji dafa bari woon ay coow semaine bi làmb ji combat yu bëri amateurs yi nanguwuñ ko combat yu bëri amateurs yi nee nañu façon bi nga xamante ne moom la ñu ko arbitré moom la ñu d'accordul ci loolu Alaaji Bécaye yëkkati na ci ay kàddu Alaaji Bécaye ak arbitrage bi mbokk yi seetlu gi mi ngi jëm ci wàllu arbitrage arbitrage mooy atte attekat bu nekk dëgg na nag nit ay juum waaye yomb na lool njuumte gi di waaj a bari ci làmb ji jëm ci arbitre arbit yi yàkkamti bokk na ci li tax ñuy tas làmb joo xamante ni ni benn làmb ja eggul ñaar kenn ci mbër yi daanu wala mu doon njaax làmb lii la làmb daan daanu wala njaax mooy làmb te seetlu gi mooy njaax amatul ci làmb ñan ñoo waral loolu ak ñu ko décrété mooy arbitre ñuy ñaan yéen arbitre yi bari na fi ay xale yoo xamante ni yaakaarunu lu dul làmb ñu tëggal la combat ngay waajal ak say mbokk waajal ak say xarit waajal ak ñi nga yaakaar ni ñoo la war a mën a jàppale rawatina ak amateur promoteur sonn ci CNG def lam war a def lépp ba nu yegg si ci biir arène ñu organiser stade bi am mbooloo ñëpp jóg taxaw ku nekk ak ka nga faral mais danoo seetlu ni parax parax gu arbitre yi di def yàkkamti combat bu nu seetloo combat yi nga xam ne moo am samedi passé la ëpp ca làmb ja la ko yàq arbitrage te bu nu xoolee violence bi nekk ci làmb ji ay fans club bokk nañu ci wala ñoo ko indi waaye dafa mel ni arbitre yi dañuy jàppale sa club yi ci violence bi nga xamante ni moom la ñuy def ci biir làmb ngal la ŋàññunu xeexunu xuloowunu waaye làmb dafa metti waajal sa combat ñëw ba ci biir stade bi ñu jox la défaite boo xam ne du règlement làmb ndaxte neexul ba neexul waaye làmb ñëpp mën nañu ko mën a arbitrer ñëpp xam nañu lan mooy daanu ñëpp xam nañu lan mooy daan ñëpp xam nañu lan mooy njaax ci làmb joo xam ne làmb bi Modou Lo ji xale bi mu bëreel làmb jooju bu nee foofu am na ku daan te kin ni moo daan mi ngi quatre appuis taxaw yor quatre appuis ñu ne ko yaa daan am keneen koo xam ne africain la neexul ba neexul waaye africain daanu ñu ne ko dangaa daan booy ngaay ak keneen am na beneen xale boo xamante ni moom tamit noonu lan ko def nee na danoo daanu xëy na danoo daanu waaye ñuy ñaan arbitre yi ñu leen di ñaan ngir yàlla saison bi tëj na waaye te ni mbër mu def lu dul yoon war nañ ko nag di ko sanctionné arbitre dëgg la dégg nañu ay ayubés bee ñu weesu am na ay arbitre yoo xam ne dañ leen a sanctionné à vie lu ko waral danoo yàq loolu ñu ci félicité le CNG noona lan koy félicité ci képp koo xamante ni def nga lu jaaduwul ci làmb ji yàq làmb ñu teg lay daan ànd nañ ci moo xam muy arbit moo xam muy mbër moo xam muy fans club moo xam muy communicateur ak kum ci mën a doon ku nar a yàq làmb ngalla nañ ko génne ca làmb ji moo tax ñuy ñaan arbitrage vraiment jàppale leen yenn saa yi alaaji papa ñang nee na ma est-ce que du combat yi ñoo bari ci seen kanam fukki combat ñu bëgg ko évacuer vite fait vite waaye bul vite fait avenir nit vite fait bu mu tax ñu ne dañuy hypothéquer aveniru doomu aadama parce que yaakaaru nu ñoom lu dul ci làmb kon ñuy ñaan arbitre yi ñu xoolaat décision yi ñuy jël parce que coow li am ci biir stade bi keroog baaxul baaxul ci image yu làmb ñëpp sa mbaxloo dugg ci biir géew bi parce que am na fa ay combat yoo xam neexul ba neexul samedi passé bu dee am na lu yàqu ci làmb ji c'est l'arbitrage ñu leen di excuser wu nag dëgg la woykat ba waxoon na nit ko dul juum amul waaye njuumte bu yàggee du baax bu yàggee day doon lu yées nan nu jàppale arbitrage ñu ak yéen ñoo far ñu jàppale nu jàppale xale yi bañ a yàq làmb ndaxte am na ci loo xamante ni ca dëgg-dëgg ci yàq làmb la bokk te bëgguñu ko ñu ngi sacrifier ay xale yoo xam ne dañoo def lu ne pour mën a ñëw ci làmb ji kon bu nu demee ba wutal leen combat ba nu ñëw ñu bañ a yàq làmb loolu daal mooy sunu xalaat ñu ci jéggulu mbokk yi ñuy gërëm nag ñuy gërëm ñi nga xamante ni nii ñoo nu jàppale ndaxte ñaari yoon FM Sénégal tëgg na làmb jàppale moo tax ñu tëgg làmb bu du ak jàppale du ñu tëgg làmb ñuy jëkk gërëm képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci rajo FM Sénégal ci jàppale ñuy gërëm la 2STV ci jàppale gi nga xamante ni tëgg na nañu ñaari yoon ñu jàppale nu ci lépp loo xam ne jëm na ci promotion ak ci làmb ji ñuy gërëm toute la presse waaw gis nañu li ñu bind gis na nañu li ñu wax gis nañu li ñu jàppe làmb te noonu nu ko defee ci ñun lañ koy defee ci ñeneen ñuy gërëm bépp amateur ko ci loxo Cheikh Sarr ñu koy gën di gërëm Abdou Aziz Guèye sunu xarit ñu ngi koy gërëm képp kuy promoteur gërëm nañu la gis nañu taxawaay bi ñu ci def waaye ñu suqi kenn rek muy Kandji ci moom la ñuy jaaree ngërëm gi ndaxte non seulement def na li promoteur yëpp def waaye day ñëw toog jàppale nu ci organisation kon Kandji merci yow ak say mag Gaston Abdou Aziz ah Abdou Fall Ndeye Ndiaye Tyson ñu koy jaale borom këram gi génn àdduna yàlla na ko yàlla xare àjjana ñu jaale ko gërëm ko gërëm Fallou Ndiaye gërëm Pape Mor Mbaye production gërëm Mor Ndiaye production gërëm képp koo xamante ni dugg nga ci làmb def ci jaloore bawal production ñu ngi leen di gërëm di gërëm ñëpp mbokk yi ñu ngi sant ndaxte li yëg sant yàlla la dañu doon essayer rek te bu ñu sañoon làmb day gën a mën a jëm kanam ñuy waxaat ak promoteurs yi gën a booloo gu war a am ndaxte saison bi tëj na dinañ ñëw ci bilan bi semaine prochaine waaye ñu leen di ñaanal di ñaanal képp ku yëngu ci làmb CNG ñu gërëm leen ndaxte CNG jàppale nañu ci sunu bis bi jàppale nañu bu baax ah njàmme ñu ngi koy gërëm di gërëm nag mention spéciale à Abdoulahat Ndiaye abdulaat merci ci li nga def ci làmb ji yëpp yow ak ñi ngay àndal ñoom Pala Pape Diagne Seras ak baaxum ak rawatina ak baabu mi nga xam ne moo jiite manager yi ñu ngi leen di gërëm di gërëm nag sponsor yi ñu jàppale ñuy gërëm bu baax la LONASE gis nañu jàppale gi gis nañu taxaw bi di gërëm Sénart bu baax jàppale gi ak lépp loo xam ne bokk na ci làmb te yemalewu leen ko ci ñun def ngeen ko ci ñëpp mention spéciale Tampico King gis nañu liggéey bi ngeen liggéey ci làmb yéen bu doon yéen la rek làmb yegg na milliard làmb développé làmb kon dem na fu ne ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant Katerina nga gërëmal nu direction générale bu Tampico wala Siat moo xam muy Birahim moo xam muy joueur ak ña liggéey ñëpp FM Sénégal El Hadj Bekay gërëm na leen ñuy gërëm Tayir Anne couturier bu mag bi moom tamit li mu nu jàppale ci liggéey bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gis taxawu gi nga xam ne ngi leen taxaw waa crédit international mbay jonn ñu ngi leen di gërëm di leen sant gis nañ taxaw gi waaye nag xam ngeen ni lamb ji daa am ñun ko tudde woon laat jóob doomu Golf doomu Géejawaay merci pour tout yàlla moo xam yàlla na la yàlla may li nga bëgg ñuy gërëm bu baax tiiti suñu jigéen suñu rakk suñu jarbaat nekk fi waaye mel na ni mi ngi fi ñu ngi koy gërëm di gërëm bu baax bay dem ba ak njabootu seng-seng yëpp ñu teg ko ci loxo mbay géey ñu ngi leen di gërëm ñoo ñu mbokk la nu deret la nu judd lépp la ñoo ñu lu nu def rek seen wareef la lu ma def wareef la ñu leen di gërëm bu baax di gërëm nday naar caam sama jigéen jaarale ko ci Abbas Ndooy ak Jo Mbay nday naar encore une fois merci mbokk yi daal ñu ngi gërëm ñëpp def na nañu ñaari yoon mbokk yi ñuy gërëm ñun ci liggéeyal ñëpp ndaxte jëkk nañ fee tëgg tëgg làmm tudde ko awañang Soda Bousso ah Papa Ndiaye coppet ñu tudde leen ko ñu def ay jaloore làmb ja neex ñu ñëwaat tëggaat stade bi fa tubaar fa kàll ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp gars yi nag nee nañ ma boo fi wax ne da ngaa perte waaye loolu yëpp bu soobee yàlla dinañu ci si siwaat ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaan yàlla saison bi jeexagul ndaxte Gaston xam ngeen ko am na lu mu dese mois d'août waaye nanu woor ci jàmm wori ci jàmm yàlla def ci réew mi jàmm ñëpp ànd jàmm ko yor ñu ñaanal la président de la république réew jàmm ko yor ñu ñaanal le premier ministre Mimi Touré waaw ah, dégg na nu li ko ku caadi wax sunu xol sedd na ci ndax si jigéen la jàmbaar la am na ful la am na fayda mbokk yi daal loolu lañ leen di nuyoo di gërëm nag ñëpp ñoo xamante ni jàppale na ma samay xarit samay soppe samay am di jàmm ñi ma jàppale ba ma mën a def lii lépp maa ngi sant yàlla di jullit ci yonent bi di leen gërëm di gërëm réewum Sénégal yal fi yàlla def jàmm loolu dañ ciy profité wax ak ñi nga xam ñooy jeunesse su ñun ndaw ñi nañu xam li ñu bëgg ñun ndaw ñi nañu jël suñu carte électeur ñu dem ci mbañ gàcce bi ñu fal ki nga xamante ne ni moom la ñu bëgg pour suñu gox jarul xeex jarul xuloo jarul ñu ciy xiiroo jarul ñu ciy ŋaayoo ndax lépp lépp comme ni ko moo comme ni ko Gris 2 waxee ñi nga xamante ne ñi ngi ci gox yi di jote wala di jàppante ñëpp. bu beneen atee bu mbëru gox ba jógee wala bu équipe bu gox ba jógee ñoom ñëppay booloo bokk ndey bokk bàyyi àndandoo défendre seen gox kon bu mu bu ñu kenn jaral ñu jàppante bu ñu kenn jaral ñu xeex wala ñu xuloon ndax politique jaru ko ndax réew mi ñu ñoo ko moom te bu ko yàqee suñu bopp la ñu yàqal bu ñu xeexee suñu bopp la ñu yàqal bu ñu jàppantee suñu bopp la ñu yàqal ngala la jeunesse Sénégal nañu jàppante nañu bëggante te xam ne lii élection la dafay jeex léegi léegi yàggatul ci loolu suñu maam Hadj Mansour mbay am na loo xamante ne nii wax na ko ci ñu déglu ko suñu maam Mansour ci élection yi. réew mi ñu bokkoon ci lu ñuy wax Afrique occidentale française nekk na pays sous-développé waaye ñun bokkoon yëpp tur nun rek noo ci am démocratie ak liberté de presse bu xam ni benn réew amu ko bu pays développé yëpp soppunu bëggunu ndax notre démocratie xam naa ñi techniciens yi xam ni noo fi nekk di ma enristre am na loo xam ne fekke nañu ko ak lu nu fekkewul waaye li ngeen fekke daal mooy fukki at ak juróom yi passé wala fukki at ak ñeent yii gis ngeen sunu démocratie ni mu doxee lu ko waral élection am na fi présidentielle Abdou Diouf l'ancien gardien de la constitution présenté Ablaye Wade présenté Ablaye Wade battre ko Abdou Diouf ni je m'incline devant le suffrage universel dégg ngeen maître Abdoulaye Wade avec le président de l'espoir Macky Sall ñu dem au deuxième tour Macky battre ko président de tous les Sénégalais ni je m'incline devant le suffrage universel kon lii xam ne élection ca dëgg-dëgg municipal rek la ak communauté rurale bu nu ko dara yàqu xeex bi xuloo bi sànni xeer toj oto wax lu ñaaw bind lu ñaaw loolu de du mën sénégalais moo tax ñuy ñaan sénégalais yépp ak fu nu mënti nekk ci biir Sénégal ak fu nu mënti nekk ci biir région yi ca dëgg-dëgg ñoom ñépp nu dellu si seen xel xam ni nun noo bokk ndey noo bokk baay daa bokk nit ndey ak baay mu nekk ci liste be kee bokk nit baay mu nekk ci liste be waaye yooyu yëpp bu nu wotee ba ca ngoon sa ka xam ni moom la majorité bi fal moom ci dëgg-dëgg mooy félicité ña xam ni noo doon opposé li nu may nag lii ba nu nekk un pays su développé nekk un pays comme ni ko président Macky di waxee réew yëpp à travers le monde entier wóolu nu ba dina jox seen alal nu ko yóbbu ci dispensaires hôpitaux yi. di ko yóbbu ci école yi di ko yóbbu ci oto yi di ko yóbbu ci forage yi di ko yóbbu ci agriculture bi ak élevage yi li nu ko may mooy sunu réew ni mu dalee amul benn réew bu ko dalee ñu ci tudd Afrique occidentale française ñun coup d'état dañu koy dégg rek xamuñu ko kon di réew yu mag yi xam ni duñu bëgg fonk li nu fonke mooy sunu démocratie ak sunu liberté de presse kon nag lii bu nu ko kenn yàqal nuy ñaan ak sénégalais yëpp ak sénégalais yëpp ku ci nekk ànd ak sa xel xam ne lii wote rek la ana Wade bërki dem la ko Macky baatar ana Abdou Diouf bërki dem la ko Wade baatar mais lu xew jàmm kenn tojul dara amul oto bu nu lakk amul dara lu nu def loolu ku ci nekk dem présenter serment devant la nation sénégalaise ku ci nekk génn pale ba ci jàmm waaye lii mooy élection ñuy ñaan nag lii élection maire rek la élection communauté rurale rek la waay waay Sénégalais yëpp ak sénégalaises yëpp ne ñëpp ànd ak seen xel surtout nag la jeunesse yéenay l'avenir de demain ëllëg yéen yéenay remplacer mag ñi fi nekk kon bu leen dara tax ngeen yàq seen avenir u ëllëg ànd leen ak ki ngeen war a àndal waaye bu leen sànni xeer bu leen saaga bu leen toj oto bu leen wax lu ñaaw bu leen bind lu ñaaw sénégalais xamul loolu kon nuy gërëm ñëpp ak di sant ñëpp. ak di gërëm Alaaji Njaay moom kenn mënu ko bañ a gërëm ndax fépp lu nu soxla ci réew mi pour jàmm am Alaaji Njaay dina yónnee ca dëgg-dëgg li xam ni moom la yore télévision 2S ànd ak sama doom sama xarit sama soppe Bekkaay Mbay di seet ñi xam ne war na mu jógal seen baat war na jóg ca dëgg-dëgg mu sànni ay kàddu man nag je parle en tant que président national des communicateurs traditionnels du Sénégal loolu moo tax ma jël kàddu allahuma salli ala sayyidina muhammad waa mbokk yi dégg ngeen kàddu yooyu moo jógee ci suñu maam Mansour maam Mansour moom lu mu wax rek Sénégal noonu la war a demee lu mu wax Sénégal loolu la ñu war a def ndax moom mooy suñu maam Mansour ñu koy ñaanal suñu borom bàyyi ko fii maam booy dundal 111 ans dundal ba say may du baawaan champion ñu ngi lay tàggoo ah, ñun ñu ngi ñëw ñëpp. waaw xanaa kontaan rek ci Bantamba kontaan ci 2STV ak téléspectateur am yëpp tey franchement am nañ contentement trop pour wax ci émission bi. ndax ay kilifa ñoo fi ne ay kilifa ñoo koy seetaan affaire yooyu tey bu ñu amee chance su toog fii mën wax ak askan wi mën a wax ak yi dañ ciy kontaan trop. nag il faut tamit ñu remercier remercier nit ñi nga xamante ne bu dara amul ñoom ñoo ciy ne di sonn Karajo nag sama remerciement bi bu ko bu ko dagg de wane lépp ndax ñii ñoo ciy jàpp. wulul ñoom dara du baax di nuyu sunu papa Imam Bamba Sall. bu al umma di nuyu suñu président écrit Abbas Ndoye père Ablaye Meng père Thierno Dramé di nuyu Pape Mayel Diop bu baax a baax alhamdu Ndiaye nga xamante moom suñu mag la grand Masek Thiam fondation Kër Rasoul. sopp nabi sopp nabi grand boobu day def yu baax moom it xam nga di nuyu bu baax Papa Gueye xeer. Papa Gueye sama doomu nday xam nga di nuyu grand Ball doom nday Papa Gueye xam nga di nuyu waa Liberté 5 yëpp. waa Dame Sika Plateau xam nga grand Malou Silla Chérif bi nga xamante ne place bi tey moom moo ko moo moom per Ba unité 19 nga xamante ne moom sunu lépp la xam nga di nuyu nag population Médina bi yëpp Fass Colobane Gueule Tapée Centenaire bratal di nuyu nag grand Pape Seck bu baax a baax moom sunu mag la ak magam Pape Ndour ñoom dañuy jàppale bu baax a baax a baax. di nuyu nag suma yaay di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko wax na ne ko rek mu yokk ñaan yi léppay baax incha allah. mais booy bëree ji yow moom contrairement ak Gris yow booy bëree dina gën a. non bokkuñu bokkul ñaari ko waaye bokkul sax ndax xam nga moom xam na ne Gris naturellement moom mbër la mais. pression mais xam na ne kii moom. kii moom dafa bëri mooy rek li nit ñi di teg ndax man ni may dundee ci mbedd mi noonu laay dundee suñu kër mooy noppi bi gars yi di gis moom it looloo koy def kumpa. danaan mais kii nan la mën a def moom ba nekk mbër ndax yar boobu tamit moom la ñuy dund ñu ñaar. <laughs> kontaan nañu ci moom bu baax a baax moom tamit am nañu mbégte toog ak moom di ko jaajëfal di jaajëfal képp koo xamante ne nii mbokk yi yéen a ngi seetaan Bantamba ñu ngi leen di béggee bu baax di leen wax ni nii lay demee ah Bantamba la ñu wax comme ni ma leen koy waxee c'est le Bantamba c'est le Bantamba c'est le ngi leen di jaajëfal ñëpp Papa Gueye Xeer suma doomu ndey maa ngi lay jaajëfal di la siyaare bu baax a baax. sénégalais yi nga xam ñu ngi bitim réew tey bëggee bantamba di ko safoo te koy tiitaroo ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp waaw rawatina waa Espagne di nuyu bu baax a baax nag Doudou mi nga xam moom la ñu àndaloon mbokk yi nii la demee ci bantamba Laye Ndiaye jaajëfal nañ la Karajo amuñu sa fay dañ leen di bàyyi ak yi nga xamante ne ñoo si topp top 5 image du jour lépp Facebook ak sañse first class ci bantamba jërë ngeen jëf combat baa ngi noonu forcé toj na nen maam góor gi forcé ah forcé na maam góor gi forcé daan na maam góor gi. nii rek la moo leen demee quoi. ma bëree sa waay ko jàpp di ko déglu quoi di xool lu may liggéey quoi loolu nag conseil ma tax ma loolu. booy signe moo nge moo nge bu bi laay bi aussi coup de filet ko laay lay la laa laay bi aussi coup de ko jël ba attention oh daan na ko daan na ko jëli bu rëy Laye Bruce Lee. na rafet na Laye na bëri bi daan na daan gi macha allah. mais mais li nga bëri rëy na. waaw bu baax waa waa Kër Mbaye ma jàppale ñun ay champion ñoo maa ngi sant bi tax maa ngi may fànte ak maa ngi parce que service ak sama yaay. combat bi yàggul. dama entraîné laaj sama gars booy ñaar ak Tafa Gueye 3 Tafa Gueye 3 nag moo ngemb moo ngemb Lagos bi takkul dara Tafa Gueye si ñoo dara. Boy Niang moo ñu wan ginnaaw Boy Niang jàpp na file na ko daaw na ko saggi na ko daan na ko jëli bu rëy Boy Niang Boy Niang daan na ko. dara dafa doonul dara ñu sonn ci ñun téye ñu père yërëm ñu. mu léegi Omar Ndiaye sonn ci ma nekk benn baraak di liggéey. yëpp da nga ko wuti. bu wér gars yi mu léegi Omar Ndiaye Adama Diouf sonn ci. diggante Pape Sakho ak Bébé Tyson Bébé Tyson moo ñu wan ginnaaw. Pape Sakho Pape Sakho lu xew at bi nee nañ bëriwaat Bébé Tyson Bébé Tyson ah, arbitre mooy maire de terrain man moo ñëwoon mu def ma nii dama dem ñibbi gëm yàlla na gëm yàlla xam na daan naa waaw di sant ñëp nag di sant ñëpp sama waa koñ Baxdaat. mooy sa premier combat. mooy sama premier combat. man laa la wax bu ma ko daan li may wuri ñu ngërëmu sëñ Bamba yàlla bu ma ci am dara barke Serigne Sall dama koo daan bilaay walaay mais xam nga buñ bàyyee suñu lépp ndax lambu di préparé wu guddi di préparé wu bëccëg du yoon ñuy yàqale suñu lamb ci nii waa ñaari xale yi nga xam ne ñoo tolloo doole instant bi ordinateur du ko may dara dafa jóge ci défaite moom laay gaynde jóge ci victoire kon euh, combat bi du nekk combat bu yomb Aliou Gaynde jël na ko ñoom ñaar ah, Aliou Gaynde Aliou Gueye ne dama ko daw fàq di xar mu tëgg ma mbor ma jéggi mbor mi indi ko indi ko deuxième mu ñëw. yow pour que war ngaa xam man maay kan. naanaan nga. yàgg nga maa jël fii may jàpp gars yi di leen defal affaire. victoire nag kenn rek laa ko may. sam papa laa ko may. noo gisee lamb Mor Mbaye. waaw vraiment kontaan ci lamb ji parce que Mor Mbaye dafa nekk jeune boo xam ni dafa nekk di jàpple talent banlieue yi daal. tey bu ñu jëlee làmb ji tuddee ko suñu kilifa muy Adja Mbathio Niang nekk suñu présidente des femmes transformatrice et micromareyeuses de la région de Dakar dañ ci am kontaan loolu moo ñu indi fii tey suñu teewaay. waaw bi mooy sama deuxième journée pour Géwal ndax euh, comme ni ma koy waxee rek ñoom ñoo ci jàpp bi may tëgg euh, mbappatu baas. ba heure bii fu ma dem ñu topp sama ginnaaw damay ñaan yàlla ñu dem ban ban dañuy jàppale ñu def ay édition édition ndax yow Bour Gueweul war nga xam ne suñuy journée euh, daa am tuuti li des rek bu loolu ñëwee rek Euh, liñ bëgg a liggéey lépp ci làmb ñu liggéey ko. waaw man xam nga moom yaay Fall laa donc comme ci waa Kër Cheikh Ibra laa bokk donc damay yaatal looloo tax képp ku ma woo rek ma ñëw yaatal lu ma la mën a jàppale si côté bu mu mën a doon rek dinaa ci laal pour jàppale la. Bathie Rache Junior moo def dabalaa bi. moo dabalaa. waaw moo dabalaa euh, Bathie ma macha allah. def même amul ruus bi waaw. ah bañ na. Bathie mën na bëre waay mais Bathie mën na bëre waay. attention. oh. macha allah daan na bàcc. mais bañ na ba sonn il n'a pas démérité bàcc daan na mais mais mais il n'a pas démérité parce que. bëri na sonn bëri na ba sonn daanu na mais euh, jàmbaar nag daw dafa wuti doole na dem rek waat xam ne ni euh, biir ñëw waaw waaw bàcce ngi noonu waaw moom tamit macha allah ñu koy félicité mais bàcc daan na mais démérité wul franchement. démérité wul de ah. non non bëri na ba sonn bëri na ba sonn dañ koo daan rek mais bëri na ba sonn. man dama bokk ci làmb. Ah. kuy sama nijaay boo ñam bu Cees billahi wallahi taala comprendre kooku lu lay def na fi si lamb Serigne man nag maa ngi ñëw wër na yàlla ci arène bi si dal ci gaaw gaay yi Serigne Bamba jarbaatu booy jël bis jox la Mor Mbaye Ngéwél gi production loo ciy wax waaw lu ñu ciy wax rek mooy am nañ ci mbégte am nañ ci kontaan lool di ko gërëm di ko sant suñu wóolëree la ku baax la lii mu ji def ñii def ñu ko yéene moo tax ñu ñëw it fas yéene toogal ko taxawal ko fi ndax bés bi it bés bu rafet la. félicité promoteur bi Ngéwél gi production ñaanal leen yàlla yal na leen yàlla sutural ba li ñu yëkkati. ni ñu taxaw a jeunesse bi yàlla suturaal leen ñu am ci ndam. en tout cas Bantamba c'est la meilleure émission au Sénégal yàlla na ko yàlla saxal te dana danañ am lu raw fu ñu toll. dëbbante nañ sol. waaw instant bi métti na dëbbante nañ sol waaw dafa mel ni am seen jàpp na. kott na ko cabaxal. oh attention. volcan ama eh. ña ngay mbatante volcan ak ama ñaari xale yaa ngi bëre. waaw combat bi dafa mel ni buur nil la ko bi def parce que dañoo bëre temps bi yëpp instant bi tamit ngi guddi ponkal mu la nga bëri nag yow xale bu ndaw doo ñëw jësee jësee risque def faux pas mu am ndam si kaw ñaan nga ñàkk faal ñàkkoo faal dañoo bëre mu matt ma ñetti yoon ñeenteelu yoon bi laa ko dóor dañuy bëre amul matt ma njaay bor sa njaay ma njaay ma njaay

Papa Ndiaye Xaadimo doomu ndeyu Babacar a ngi noonu. Karbala attention Mballo daw na wër Karbala oh Mballo daan na Karbala ah maana maanaam tànnaar melu. dama gaañu si tànk mais tërëwul moo tax tuusuma sax mais ma gaañoon si tànk sama gars yëpp ay ñëw am na sax ñu fa des mais biig ci guddi kër Modou Mbaye laa dem man dama am blessure tànk dama doon wàcc escalier yi daanu moo tax gars yi xaw a découragé sax mais xam naa beneen yoon dina gën a neex. drapeau bi am na solo am na solo. Ah! waaw waaw waaw. Pape Pape Rabo dafa mel ni moo daan jaxasoo. ah Pape Rabo daan na jaxasoo. Pape Rabo daan na jaxasoo. jéelaam na jéelaam na. Adidas nag bëreewul dafa mel ni. mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah di sant ñëpp di sargal ñëpp di jaajëfal képp ku nga xamante ne yaa ngi jàkkaarloog la 2STV rawatina nag di suivre seen émission Bantamba ni leen ko baax di defee saa su nekk saa bu talaata jotee rek eh, ci biir Bantamba l'officiel indi leen image du jour tey nag moom muy bu spécial ndaxte tey suñu mbokk moomee salaam <laughs> ñu xamoon ko ca rëm tëmbi tëm nga tey moo ñu reporter combat bi combat bu mag a mag a mag bu amoon ca diggante ñaari nag yi ñu seetaan ko te dellu bañ na a bañ na ah, ah Bombardier koy bu max ah bañ na bala bañ na Balla teg na ko ah waa Bantamba ah Bantamba Alaaji Bekaay Mbay combat métti na ah Bombardier bàyyil fi ngay jam doomu jàmbur ji soxor nga ah waaw waaw <laughs> cim ilaha illallah lamb naga ngi fii ci terrain Liberté 6 Balla Gaye ngi arrière ah Balla Gaye ah Balla Gaye pousse ko Balla Gaye pousse na Bombardier Bombardier taxaw na Bombardier poussaan na Balla Gaye mi ngi koy puus mi ngi koy bëmëx Bombardier Balla Gaye Bombardier Balla Gaye Balla Gaye koy wër ndombo Balla koy wër Bombardier bañ na Bombardier koy bëmëx ah dama ne saaku ya dama nañ ca saaku ya dama nañ saaku ya Balla Gaye waxoon nan leen Balla Gaye dafa feebar waroon jël combat bi waroon jël combat bi waroon jël combat bi dafa feebar ah Balla bañ na borom nitu jom la du ma leen sax ne taxaw Sa Thiès ngi ñëw ah Pape Dia gi ne Pape Dia mooy frère ju Bombardier moo nekk na le ah allahu akbar ah a ah Bombardier waa gis ngeen ko noonu tey salaam remplacé woon moom Père waa gis nga ndam demul ndam dikku ci ñaari nag yooyu ak ñam ko tuddee yaa ko suive de nii doy na waa ñu ñëw tey ci commentaire yi ne moom Modou ma ca parcelle saay bu waxee wax toj toj mbaa ba gis ngeen ko de nee na moom Modou Lo je serai roi des arènes sous <laughs> duma ko weddi de ndax làmb gi fi ñu toll ni ay mberteelu kese kese kese kese kese la tëdde ñu ñëw xool nag lan la si gaañoo umu salamata ñëw mu ne yaa xam de i <laughs> waaye doo ko jëlee ci baal ah waaye umu mi mer na di ah umu ëpp na umu mer na lëy la sacha an ñëw mu ne moom kañ jarul sax jarul xalaat sax dix bombardier sama xarañ daan na leen i mu ne déggoo ma de le futur roi des arènes 2015 incha allah sacha bëgg nga lu neex sa mbër mi trop waaye benn bomb rek bala nga ciy génn ba <laughs> wax lu set waxatuma laak fukk Omar Ndiaye ñëw mu ne moo Lo xamul boppam ah moom Omar nag moo tëj làmb gi ub ko ràpp ni ko Aziz njaay tëje démb euh, ca ca euh, soirée boobu mu doon def ndeysaan man la ma ca métti rek mooy waroon nañ maa invité ndax ci làmb gi laa bokk nag ca laa bokk de waaye mbir mi daal ni ma ko dundeek ni ma ko gisee mooy rafet na rafet na rafet na.

général tam physique gu doomu Jaraaf dina ko. waaw daan na ko waaw da ko daan na ko. daan na ko daf ko daf ko mooy loolu loolu la ñuy wax manuel loolu la ñuy wax manuel. daf ko manuel ay la la ay la la. et Papis. Papa balaa ñoo dellu ak teg ko ko kaay. Papis Papis Papis général ji ne la. sa moo attaqué bëre bi Moustapha cokkaas na door na Moustapha Gueye jël na arme jël na tànk ba jël na tànk ba jël na tànk ba daan na ko Moustapha Gueye daan na ko état lay indi état lay indi état ngay lay lay la laa Yékini Junior nga koy jël mbot mba laa ilaaha illallah Yékini Junior mbot la ko mbot bu oh. kenn musul gis lu mel bëre na daan na bëre na daan na mbot mi rëy na mbot mi rëy numéro 2 Mbartine dóor na moog Cine ñoom ñaar daje nañu Mbartine ak Thiel Thielu taxabal na ko laa ilaaha illallah oh Sely daan na Mbaar Tine jëli bi gaaw na laa ilaaha illa abulno daan nan ko jël bu ko jaaxal ko jaaxal oh